أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد عليه وصحبه ومن والاه دي مو جانغون نيغا خامني دنجكو تري سي حرمان تاي نك مو بيغ جانغ كي داف يون تري لان ين اتي موي دال سكو من هو حفنه اك نياك موي سولو خو رك غاي توبو بام فيس في خملتي نيك نتي ري اب تين نيكي بن بو فوكي ku rey ku rey teeñ niki benn teeñ ba fukki teeñ li ko war mooy moo joxe ab ñaar dégg nga aw fi zufrin wala ci we ku dagg benn we li ko war mooy mu joxe ab ñaag su fekkee we woowu dindi lor taxut waaye bu fekkee def koo xatal muy dindi lor mu dagg ko diir benn weer moom dafay jotu dañuy wax lan mooy jotu su dee dafa dagg benn weer te dindi lor taxut kooku dafay joxe ab ñaar bu dee dindi lor tax nag dafay jotu amma bu dee ëpp na benn weer mat ñaar jëm ko kooku dafay jotu lañ maye ci karaw maye wuñ ko ci we lañ maye ci teeñ it maye wuñ ko ci we dégg nga teeñ ak yeneen rab yooyu yëpp ñoo bokk dégg nga ku ci rey fukk jëm suuf daal am ñaag bu ko nga jotu aw chaaratin wala mu dagg karaw képp ku guddi karaw ni eh, ko li ko toll benn karaw bu fukk wala mu wat ko hmm. dégg nga su boobaa dana joxe ab ñaag bu ko ëppee mu jotu hmm. bu karaw gi moo daggal boo xam nag ni ko da doon war mu dagg wala muy wàcc wala muy sangu janaaba wala demee noonu karaw gi dagg wadd loolu moom dara nekkut ci wa fideetun dana jotu fi ma kasura ci la bëri na su fekkee rey na ci rab yu ndaw yooyu lopp fukk jotu lay def bu dee dagg na ci wee ñaar jotu lay def bu dee benn la ca dagg waaye benn ba yaa ngi may déggam dafa nu mu tuddati eh, daf koo dagg te ngir dindi lor a tax soo boobaa dafay jotu amaa bu dee wee dafa dammal boppam loolu damm rek mu dindi ko loolu moom dara nekkut ci far waaw ne moo dammal boppam mm-hmm. mu dindi la damm dégg nga waaye na xem ci la damm rek mm-hmm. karaw bu daggee lu ëpp fukk dafay jotu dégg nga su fekkee moo ko dindil boppam mm-hmm. waaye waxut karaw gi dafa doon war mu wadd ak yooyu nga xam ne mënu ci dara loolu la na jotu fi ci la bëri na kala mu di wax maa ci nga xam ne yetta rattabu dana toftaloo alal muharrami ci aji xarmaal dégg nga xukumu atteem bi fi'li shay'in ci def dara mi maa taqaddama ci la jiitu na maanaam li li lim njëkk a wax ne aaya nañ ko ku ci def dara la ko war moom la bëgg a wax bi xawli ci waxam wa xamnatun ñaag fii xam natu nekk na si teen ay lu mas na mu andoona am ba xam yajibu dana war ala muhrimu ci aji xarmaal fi qatli xam natin ci lay teen fa ak sara mbaalu ko gën a bëri ilaa ashratin ba fukk dégg nga xafnatun ak ñaag dégg nga min taamin ci ñam mm-hmm. ab ñaag lay joxe ci ñam wayi moom min ul yadayni mooy lu fees ñaari loxo mm-hmm. dégg nga ñaagam lay joxe <coughs> min ul fees ñaari loxo tonti dana ko jox li miskinin mm-hmm. ñeel miskin min axraarin muslimina ci góori jullit ñi ñaag lay joxe dégg ñaag woo xam ne gor la koy jox jurit la koy jox te miskin lay doon mooy koo xam ne amul dara kooku lay jox am ñaag dégg nga mhm. dégg nga aw fi sufin wala ci wee dégg nga mhm. walla ci e, wee mhm. way way tëji bu dana waali ci mu ay dem ba tey xaf na ñaag min taamin ci e, ñam dégg nga fi xalami sufin fi xalami zufrin ci lelli ab we mhm. su lellee we dana joxe ab ñaak ci ñam waaxidin benn we nag laa ci namu mhm. laa ak waaye namu ma ci lépp mhm. benn we lépp benn we moo waxuñ ko benn we rek loo xam ne bu ko daggee dana joxe ab ab ñaag waaye lépp benn we loolu waxuñ ko dégg nga aw charatin wala karaw ay wajibu dana war a ci moom dégg nga mm-hmm. dana war ci moom mu mu tuddati ixraaju xafnatin génnee ab ñaak mm-hmm. mu génnee ab ñaak fi xali shahratin ci buddi karaw faak sara mbaalu këpp ilaa ba ci fukki karaw mm-hmm. benn karaw bu fukki karaw su daggee wala mu wat ko mhm. dana ci joxe am ñaat aw xalqihaa wala mu wat ko kazaalika nag noonu laa in saqatat waaye waxu mu rot bi nafsihaa ci boppam mhm. aw bi sababi rukubin wala sababu war dégg nga mhm. aw nuzulin wala sababu wàcc aw xusin wala sangu wa fidiyatin jotu fi maa kasoo ci la bëri na ay way tujibu dana war fidiyatin jotu fi maa zaale ci la ëpp ci fukk man xam nañ ci teeñ aw chanrin wala karaw ka ahada achra ni ki fukk benn faay nañ ci aji def su fekkee dafa dagg lu ëpp mm, fukki eh, karaw ak benn mhm. maanaam lu ëpp fukki benn fukki karaw ni ki fukki karaw ak benn wala mu rey lu ëpp fukki teeñ ni fukki teeñ ak benn moom mi ko def noonu jotu dana ko war dégg nga mhm. dana ko war ba fii ma zaada ak ci la ëpp naa la zufri ci benn wee mhm. kees ne ni ñaar fak sar mbaar ko ëpp comme ni ñu ko waxoon rek ñaari wee lu ko ëpp it kooku jotu moo ci war wa in taaddadat ndem liimu na muujibun mm-hmm. aji waral jotu mm-hmm. taaddadat jotu ga dana liimu mm-hmm. su fekkee la nga xam ne mooy waral jotu daf cee def ay mbir yu bari jot yu bari lay def dégg nga nit ki mu wat boppam daal di lell te jamono yi bokkuñ su boobaa dana jotu illaa bi arbain lu may mu def ñeenti mbir bi fawrin ci benn yoon wala boo illaa bi arbain lu may ci ñeenti yoo xam ne foin la nañ ko bi fawrin ci benn yoon su defee ñeenti mbir ci benn yoon maanaam benn digg mu def ci ñeenti mbir mm. kooku moom benn jot rek lay def ni ki benn digg ci la wat karawam daal di ko muur sol simis lelliweem mm-hmm. ñeenti mbir ngoogu mu def ko ci benn jamono ko su loolu moom benn benn jotul la la ci kii mhm. ndax comme ko ci benn jamono la ko defandoor su boobaa loolu duñ ko tuddee ne dafa def ay mbir yu waral jot yu bari dañuy jàpp ne benn jëf la rek mhm. dégg mhm. aw qaddama wala mu jiital asawba mbubu ala sirwaali ci tubay su fekkee def na ñaari mbir yu waral jotu waaye benn ba moo gën a matale nga xam ne benn ba doy na benn ba xam nga simis nit mën na koo sol te du sol tubéy mhm. kon su solee timis simis mun na baale awra yëpp dégg nga mu daal di fa sol mu daal di ci teg tubéy mhm. loolu benn jot rek lay def parce que ba njëkk def mhm. yow baale na bu ñaareel ba bu ñaareel dafa mel ni defu ko rek ndax mbub moom muur na rek kon sol tubéy gi moom su fekkee dafa am ñaar yoo xam ne bu njëkk ba yóbbaale na bu ñaareel ba bu ñaareel boo ko defee dafay mel defoo ko benn jotara ngay def aw sonnahu wala mu njort ko ibaaxatal afaal yi daga nag def dégg nga maanaam su fekkee dafa def yuñ ko yuñ ci moom mbir yu bari ni ki war na bopp ba lag dagg weewoo mhm. waaye dafa jàpp ne loolu dafa dagan hmm? Hmm. maanaam mën na ko def su benn jot rek lay def waaye bu ko wóoree ne lii dafa xaram nag moom mu defandoo mu def ay bëri yu wutee su boobaa ay jot yu bari lay def mhm. kon su fekkee dafa jàppoon ne mën na ko def moo tax mu def ko te ay mbir yu wutee la ah su boobaa ci ay jamono yu wutee it su mhm. benn jot rek lay def awin na waa wala bu yéene ak takraara baamu mbir yooyu am dan ci tey fa faal mu def ko mhm. bu fekkee ba muy xarmaal la yéene ne mbir yi moom danaa ko def mhm. maanaam danaa sol tubéy hmm? mhm. dégg nga après danaa kaaloo danaa def nangam moom moo yéene woon def ko ba defee ba mu xarmalee ba pare mu sol tubéy gannaaw go mu soraat simis gannaaw go mu soraat kaala su boobaa benn jot rek lay def parce que daf ko woon ba am def ko eh, ci ba muy commencé xarmal mhm. dégg nga waaye moom jotu ala taxiir yi nekk na ci tànn maanaam yaay tànn bu la ci neex nga def que Seydi niki <sniffs> ki rëbbu mhm. asala goo xam ne am na fay ak rëbbu dana ñëw ci kanam mhm. moom it yaay tànn <laughs> maanaam ku rëbbu ab rab la ngay fay la nga war a def Mm-hmm. loolu yaay tànn bu la ci neex nga koy nga def ko mm-hmm. naka noonu it ku def lu ñu la aaye woon ci xarmal lu ñu xaraamal ci yow da war a jotu mm-hmm. dégg nga bu fekkee jotoo ci war day ñaaga ci war nga joxe ñaag bu dee jotoo ci war jotu googu ngay def moom it yaay tànn bu la ci neex nga def waaye waxuñ ne force bii nga war a njëkkee boo ko mënul ngay door def bis topp bu la ci neex moom ngay moom ngay def dégg jotu lay wax nag ne Euh, que Seydou def mel ni rëbb goo xam ne am na maanaam comme feeg rëbb bu ñëwee mhm. googu saatun gàtt la fa ala mbaalu gën a kawe gàtt xeetu jot yi nga xam ne moom la ñu tànnaloo. Mhm. ñetti mbir la. bu la neexee nga rey ab gàtt. Mhm. xar ak béy lu ko gën a kawe. maanaam ba nag ba gëlëm. gàtt ngeen nag na nekk gu mat ci at na mucc ci ayib. aw salaasan wala ñetti fan fa sum na nga ko mhm. wala nga xoor ñetti fan mhm. aw sitatan wala juróom benn mu deeni ñaari muut mu deeni ñaari muut iti xami na ko lexal mhm. wala boog nga lexal juróom benn miskin miskin bu nekk nga jox ko ñaari mut mooy tolloog kilo dégg gàtt googu ngay rey mhm. duñ wax ne ci barab sàngam nga ko war a reyee wala jamono sàngam nga ko war a reyee mhm. moo ko xadi yu ñoo yem fu la neex nga reye ko di la sa dëkk la mhm. jamono ju la neexit moo nga koy rey na nga na nga gi rek waaw dëkk bu la neex nga koy reye jamono ju neex nga koy nga koy wax ne wa in taaddadat ndem lii mun a waral jotu taaddadat jotu go dafay liimu mm-hmm. ay annal fidyata na ko jotu te taaddadu dana liimu alal muhrimu ci aji haram harmal qabla taxalluli njëkk mu yeeweeku bi taaddudi muujibiha ci liimug la koy waral daan faarata mooy mu def asiya ay mbir mu yu liimu kullu waahidin benn bu nekk minaa ci ñoom yoojubu day waral al fidyata jotu mm-hmm. bu fekkee dafa def ay mbir yu liimu benn bu nekk di waral jotu su boobaa dégg nga mhm. dégg nga su boobaa islam danaan ko ay jotu ngay def mhm. kama isa xalaqa nekk mu wat raasoo boom su ma labisa topp mu sol ma xiitan lu ñëw cër su ma xalama topp mu lelle azafiro ay weyam mhm. fi azmiratin ci jamono muxtalifatin ñu wuutee kooku waal yi war na ko fikkul waaye dañ ci benn mu nekk minaa si ñoom firi dañ ci jotu jotu lu mooy na yim ci bëgg a ci kanam mooy illaa bi arbain bi fawrin ay illaa bi fiili arbaati ashyaa lu mooy mu def ñeenti mbir fi fawrin waaxidin ci benn jamono mhm. mu defee def ñeenti mbir fi fawrin ci benn jamono mhm. min xeyri taraaxin ci lu yéexe mhm. maanaam benn yoon la ko defandoor loolu benn jotu moo ci war ñoom ñeenti yooyu كما إذا حلقنك موت بهم وغطاه تموركو ولبس مصل قميصا سمس وقلم ملي لأظافر أيوام في آل واحد تبان جمنا فهل ورنكو في جميع ذلك تنبولم يوي فدية واحدة بين جوتو إذن هي نيوم بمنزلة الفعل الواحد ممكن تول ممكن كتشوا تشوا بين جف لفوريتها غير gaawee gi mu comme que yëpp benn yoon la ko defandoor loolu day mel ni benn jëf te bëriwul bopp aw xaddama wala mu jiital asooba yëraala sirwaari ci tubay ay waale yi war na ko fideetun waaxidatun benn jotu fii taqdimi maa si jiital li nga xam ne nafa moom njëriñam ah moom moo gën a matale wa yumkin dana jàpp na istixnaa doylu bii ci moom min xëyri yi ci dul moom su defee loo xam ne njëriñam moo gën a matale te njëriñ loolu rek doy na walis leneen li kama idaa labisa ni ki mu sol xabla lubsi saraawil yi njëkk muy sol tuba mm. yi bi ak ak yére mu sol alxamisa simis foofu moom simis amu moo gën a matale nafaan ci njëriñ mun mm-hmm. a saraawil si tubay ndax moom mën naa yóbbaale tubay tu tubay mënu ko yóbbaale mm-hmm. wa tumkin dana jàpp ne asraatu julli bi si simis doona hoo wari si tubay mm-hmm. isa kaana bu nekkee saatan di suturaal yi ti ñeen awra simis te simis rek mën nga woo sol julli aw xadam wala mu jiital xalan soo ay taaqiitan am mbaxana ala Ah, ah, kaala mhm. fata taxidu dana benn alfidiyata jotu ga <laughs> fekkee mbaxana gi la jiital ba pare door a sol kaala duñ ko wax ne ko ñaar la parce que mbaxana mi rek yóbbaale na kaala ga mhm. kon su boobaa benn def ay dan ba tey aw zanno wala mu njort jotu ga ibaaxata afaale muy lu dagana def ay wata taxidu dana benn alfidiyata jotu gi maa ida faala su defee almuharima ji xarmaal أربعة أشياء ينتمر متعددة يليم بأن ولا أشياء ينبركم متعددة يليم بأن حلق موت رأسوبهم وقتل مري قملنتين وقلم مليل أظافر وإبهم zannan daji njort ibaata fiil yaa dagan ak defam su fekkee dafa def ay mbir yu limu wat karaw ga rey teeñ lelli weyam yaakaar ne dagan na ci moom su boobaa it dégg nga Euh, ndem dafa jàpp ne dafa dagan benn jotu rek lay def benn jotu rek mm. te pourtant yi mu def lii mu ne waaye jàpp gi mu jàpp ne dagan na mooy taa taayul xarib googu moo ko may kii waaw mm-hmm. maaloo kaan waaye bu nekkoon aaliman di xam bi hukmi ci àtt bi ne dafa xaram mm-hmm. fata taidu dana liimu bi xadri ma faara ci kim lam def min mujibil fidya ci lay waral jot su boobaa dañu jàpp ne dafay waral lu mu def rek luy waral jotu rek ak jotu boppam nga نم قمنا أتبا أو إن نوا ولو بيني التكرار با مامدن سيف فعل مريف أي إن نوا نميري تكرار الفعل با مجف جا عند إحرامي سيما حرمارم وفعل مريف ما نوا ولم يري مكررا دلين بامو سوفك بمي حرمال دفيني بامو أي مبير نزانو كدف بباري مدفكو مانام def ay mbir dal la bëgg wax ay fa fi'lu shay'in baamu gi lu ñu si nam mooy fi'lu shay'in def dara baa mm. ba'da shay'in gannaaw dara maanaam moom dafa yéene woon ne def dara tegaat si leneen tegaat si leneen hmm? daf ko yéene woon su boobaa benn jot rek lay def su ko defee kama mm-hmm. iza labisa ni ki mu ay tubay mm-hmm. su ma la maanaam tubay kon su ma labisa mu sol baado gannaaw ko xamisan simis mm. su ma labisa topp mu sol imaamatan kaala te yéene woon na ko mm. faale woon na ko fideetun waahidatun benn yéene li niyati yi ngir yéene gim fidyatun waaxidatun benn jotu mm. li niyati yi ngir yéene gim yéene baamu ko maanaam def ko mm-hmm. awalan ca commencement ba waye moom ala taxiiri nekk na ci tànn ka saydi comme rubu xasara goo xam ne am na ay waye moom ay muslim al fidyatu jotu salaasatu an waaye ñetti xeet la ala taxiiri ci tànn la nekk mm-hmm. laa ala tartib waaye warul la nga toppalante ko te jazaay saydi ni ko fayeg rëbb foofu moom fayeg rëbb ala taxiiri tànn la eden ba tey mm-hmm. rëbb feeg rëbbu bu reyee rëbb ab rab danañ ko jàng la mu war a def la tànn bu la ci neex nga def ko dégg nga. naka noonu it ku kuy jotu ñetti mbir la mooy tànn bu ko neex mu def ko. wa qawloo waxam xasala am na axiral bayti ba ci mujjëg bayti bi. maanaam maanaam mooy anna xukmal firidi naka àtt ak jotu. xasala am na mu waafiqan di dëppoog li jisaay saydi ñeel feeg rëbbu gis ngir kullu waaxidin benn mu nekk mënumaa si ñoom salaasata an waaye ñetti xeet la. wala ku mu ci moom ak taxiyul la. feeg rëbbu ak. Mm, jotu bu nekk ñetti xeet la te bu nekk yaay tànn bu la neex nga def kon ñoom ñaar dëppoo nañ mhm. loolu na mu ci xasala am na maanaam ak dëppoo am na fa ay ana anwaal fideet naka xeeti jot yi mhm. alati yi nga xam ne nii yu yu danañ tànnaloo mhm. al muftadi aji jotu ji fii fiili ayyuha ci def bu mu ko ci bu ko ci neex salaasatu ñett lañ xeetu jot yi nga xam ne dañuy tànnaloo kuy jotu mu def ci bu ko neex ñett la saatun gàtt fa en mbaa bu ko gën a kawe axaduwaa benn bi nusukun mooy jaamu yàlla bi shaatin ci gàtt goo xam ne yu taqarabu danañ jégaloo ilallaa jëm ci yàlla bi zabiha ci rend ko lil masaakin ñeen miskin bi si njëkk mooy gàtt goo xam ne ni dégg nga da nga ko rendi ngir jublu ci jaamu yàlla mm-hmm. jox ko nag miskin yi faala mbaa bu ko gën a kawe maanaam gàtt wala nag wala gërëm la na mu ci faala mm-hmm. ay aw baqaratun wala nag aw barinatun wala gërëm kal uduxiyati na mel ni tabaski fi sinni ci at وسلامة مت من العيوب شيء عيب ما نام قط قمن تبسكرم ومن أديو أو سلاسة ولا نيت فسوم ننكور أي وساني أنا بس بسوم سلاسة أي مهور نيت فن أو سنتين جروم بنو مدين نياري ليبر مدين نياري ليبر إتهم نيل لهال مدين دكوا بام ورقد وسال سواني ترب إتهم مسيرة مساكين موي لهال جرم بن مسكين من أحرار المسلمين شجوري يوريني لكل مسكين ين مسكين مداني نياري ليبر bi muddi yi mhm. ci mutam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo di kilo am na nag ci nattale yu ëpp kilo mhm. wa taqaddama jiitu na bayaanul muddi leeral lan mooy mudd dégg nga wala taxtasu du jagoo bi zamaanin ci jamono wala makaanin du caagin barab mhm. mudd eh, hadiyu gi nga war a joxe war koo eh, rey wala ñi nga war a maanaam joxe gi daal fi nga ko war a defee xamul jamono nga ko war a def amul barab sàng nga koy defee kal xat yu moog xat yu ñooyam balli fi nek jius dana degal lo ñal ko fienlowaa def ko fi ay zaman ci jamono ju ko neex wa fi ay makan ak barab bu ko neex walaw bi barad yi doontu lay ñib ci ba ci rewum sax mu door fa jotu baxna wal aslu li ci san fi daalika ci lol qawlu taala moy wax yàlla fa fidyatun najatu min siyamin ci hor aw sadaqatin wala sarah miskini aw nusukin wala gàtt ak jaamu yàlla lol na alquran def na ko def rek waxtu ban barab lu koy defé tan bi mu laabeeta la يستثنى دنين دنين ست مما يحرم تلا حرام على المحرم تاج حرم أشياء يمبر يا خمن يجوز دنا دكان له نيا كفعل وعدفك ولا تلزم تلوك ورفيدة جتو أما يا خمن دينغ دفع منام كحرم حرام نمر فك وابوك رفيا دجتو كم يجي حرام عليه دنا يجتو بعمر شيء خمن دفع حرام وابوك رفيا دجتو فيجوز دنا دكان له نيا كشد النوار تك تك النوار المعروف بين قم بالكمرة تشينجسي gisee mooy yooyu ñuy takk di ci def xaalis ak yooyu demee noonu mhm. daa am ñoon takk seen ndigg di ci def xaalis bi muy takk fii wasti ci ndiggam laakin waaye nag bi surutin ci ay charte an yasudu na ko takk maanaam na ko dëgëral laa jildi ci der bi mhm. na ko taqal ci der bi rek laa ala isaar yi waaye bu mu ko takk ci tubayam mhm. dégg nga waaye waan ko nag mu nekk chaddu takk gi bi ci ay bouton wala yu demee noonu bouton yi muy ci der bi yooyu waaye bu mu nekk loo xam ne nii da koy da koy jël buum takk ko ci digg li wa abazim ak ay jàppukaay dégg nga mën naa am ay jàppukaay yoo xam ne mën nga koo teg sa yaram bi mu des fa mm-hmm. laa bi àqlin waaye bu nekk lu mu fas aw xarsin wala mu ñëw ko dégg nga eh, li xilaalin ci ay bant wa nax ak mel noonu bu mu ko ñaw ak bant ak yooyu di eh, mm-hmm. nga xam ni bant yi lay boole takk ko wala boobu mu ànd ak buum mu takk ko loolu bu mu ko def maanaam day wut wala mu taqal ko ci dee bi rek waaye nekkoon ak mu nekk li xam li nafaqat yi ngir gàddu dundam fii ci moom ba nga ko takkee na nekk pour def ci sa dépasse sa xaalis daal ak demee noonu te na ca dépasse ba nekk mhm. waaye bu ci nekkul du baax wa jaasa dagan na xam lu nafaqati xayri yi gàddu dépasse u keneen wa xam lu nuqulin ak gàddu xaalis li tijaarati ngir commerce dégg nga mhm. tabaxam bi muy topp li nafaxat yi ñeel euh, dundam dégg nga mhm. dagan na mu gàddu ci dépense su keneen ak xaalisu keneen mhm. hmm? xaalis boo xam ne ak xaalisu commerce boo xam ni daf koy dundee way laa nem gàdduwul ci dépense boobam defut koy ngi gàddu ci dépense keneen falaa du ko mën a taqal ci yaram wa sax dire hmm, dégg nga ngisi la fen shaddoonam takk na ko alaa isaari ci tubayam aw kaan loolu mu nekk faarixan daa ji féex dara nekkul ci biir. Mm-hmm. faa lay war na ko fideetuñ jot. dégg nga mm-hmm. xamul ci soxla bu ko takkee tuba it ak même bu dee def na ci dara baaxul. Mm-hmm. kon daal pexe lañ koy takkee ñoom danañ ko xam ñoom danañ xam ni ñu koy takkee. wa kuréel sib nañ chaddu takk ko ba adudin ci e, pëdëg aw faxsin wala lupp. nga waxoon na mën ngoo sa der bi waaye nga dëgëral ko ci sa. te takk giir waxoon na ne bu nekk ay buum na nekk jàppukaay ak mhm. ko takkee nag ci pëdëgam mhm. aw faxsin wala nuppam foofu sib nañ ko gaa waaye dara nekku ci wala firéer du jot mhm. dégg waaye waxoon na na moom ban façon takk lañ maye wajaas da nga ne la woñu rek dugg fii xaymatin ci xayma wala wit tasaqat di la dafa taq biir asiy ci boppam mën naa dugg ci xayma moom mais xarmal jëlee xayma gi dafa taq ci boppam wa jaas daga na woo ko istislaalu kerlu bi zilli asjaar yi ci keru garab yi wala jidaar ak miir yi keru garab yi ak miir yi mën na cee kerlu hmm. loolu dara nekkul si ndax ker yi dafa fekk mu taxaw noonu rek wa jaas daga na istislaalu kerlu bi cheyin ci dara yi ñaanu boo xam ne dana ko defar hmm. dana ko def ala suxdu fi ci mber gend gi mber gend mooy yooyu jaagaajal yooyu ñuy def seen gëlëm yi yaakaar bu nekkee mu sammaran di duñ daaj xale yi ci mber gend gi bu fekkee mber gend gi xayma gi maanaam gi nga xam ne dañ koy def di ci dugg di tukki dafa am leneen lu mu ci def loo xam ne daf koy keral daaj ko fa comme pontu. Hmm. Ah, aw marbuutan wala ñu takk ko bi xuyutin ci ay buum wala waa ngi niroog yooyu. Hmm. naazilan moo xam bergenn ga wàcc nañoo moom aw saayiran wala ñu ngi dox ak moom di tukki dégg nga nga bergenn bu ñu wàccee mën nañu ko wàcc waale bu ñuy tukki mën nañu ànd ak moom. léegi loolu bergenn googu ñu dugg nag. Hmm. borom Ibnu Asir moom mayewut ko woon waaw que loolu ñoom ñoo ko créé ñoo ko defar ba mu nekk mbaar dégg waaye nag moom nee na loolu dagan na. mbar geen mën nga cee dugg wa hada li huwa muawalu mooy lu ñu sukkandiku alay ci moom nga dégg si ne am na wutee waaye moom nee na lu ñu sukkandiku mooy mbar genn googu mën nga cee dugg wal qawlu wax bi adami jawaasi zalika si ñàkk a daga nag loolu daa fu wax ji lott la mhm. nee mbar genn mënuñ cee dugg lu wax ji lott la mën nañ cee kerlu ak miir yeeg barab yi nga xam ne ker yi yàllaa ko bàyyi noonu ak garab yeeg yooyu wa jaasa daga na lil muhrimi ñeen aji xarmal aydan ba tey dagan na ci ko xarmal ma tëdd ala maxidatin ci ngeganaay wa naxwi ak nuru ida kaana bu nekkee mustalqiyan di aji eh, tëdd ala zahri ci gannaawam mooy ku tëddee gannaaw mhm. aw mu tajaan wala muy aji tëdd ala jan bi ci wetam hmm? mhm. maanaam bu fekkee dafa eh, ngeganaay gi longa la teg ci ngeganaay ga mhm. wala lexee la teg ci ngeganaay ga mën naa nekk waaye wa kuréel sim nañ kabbu waj yi mu dëpp kanamam xalal gi saadari ci ngeganaayam bu jëlee kanamam def ko ci ngeganaay gi nag dëpp ko ci ah, kooku dañ ko sib rek waaye wala firiye du jotu wa jaasa daga ne loo ñel ko itti xaaw shamsin moytu jant aw matarin wala taw aw riixin wala ngelaw bee dee ci loxoom bilaalu suuqin ci lu mu taqal ko biir a ci ji boomu wooji ak kanamam bu fekkee jant dafa am wala taw wala ngelaw hmm. mën naa jël loxo yi moytoo ko muuree ko boppam daal hmm. waaye nag loxo yi du ko sësalee ci kanam gi du ko sësalee ci bopp bi bu ko defee loolu waxoon nañ day jotu hmm. wa jaasa daga ne loo ñel ko xaslu saw bi ixraami raxas yére bi muy li nijaasati ñeel sobe bi laa saaboon ci lu du saabu mm-hmm. yére boo xam ne daf koy xarmale man na ko bu amee sobo sobe mën na ko raxas mën na ko mm-hmm. fóot waaye du ko fóotee ko fóotee saabu mm-hmm. o jaas daga na loo ñeel ko ibdaal mu bi saw bin aaxar ci beneen yére li wasi xin ngir tilim aw xëy wala lu dul bu fekkee yére yérem dafa tilim mën naa wutaat beneen yére remplace yére dara ci o jaas daga na loo jaay yére boobu wa jaas dagan na lu wañeel ko fas duñ gàjji li darurati ngir lor bu fekkee dafa am euh, ci problème am ab cër boo xam ne a na problème mën na koo gàjji bi laa hmm. taasibin waaye du ko takk wa jaas dagan na ixtijaamun nàmpatal li darurati ngir lor min xeeri ibanati shaari ci lu muy dindi karaw bu dindee karaw nag nga dem ci at bi ñu waxoon ci gannaaw hmm. wayu karaw sim ne ixtijaamun nàmpatal bi xeeri daruratin ci lor ci aj comme niñ ko sibee ci كورشي كفيبر فين عصب ان متكن المحل الفصدي برا بقاجبة او ابانا ولمو دق شعر كرو المحل الاحتجامي شي برا بو آه، نام بطل با ولو لي عوزين ديري نجن جانترا فعلي ورنكو في ديتون جرتو خنا مويسو كرو يمتي فوك كرو اك بن أيوة. جين ولا بو من نامو سكون ديكو كي yaa fukki keroog benn moo gën a jëf dégg nga wam naa tere al insaani si jigéen ala insaani si doomu aadama xatan shajari dagg garab min xaramin ci xaramu mag kooku moom ko xarmal ak ko xarmalutu si yem ñëpp lañ xaraamal ñu dagg garab foofu ca makka illan sana lu mooy lay door wal isxar ak isxar loolu ñaari xeeti garab la yoo xam ne ñoom xam nañ ko foofu moom dafa am njariñ mooy garab yooyu ñoo am njariñ moo tax maye nañ nga eh, dagg ko ngir jëriñoo ko sana dañ koy fajoo mhm. lay door lu neex xet moo tax may nañ nga dagg ko mhm. dégg nga waaye yudul yooyu mënoo ko dagg wam nax tere al insaani ci doomu aadama ay oxkum atteel bi man yi ci tere ko wala zumi ismi ak wàccu bàkkaar bi fenn ci def ko xatun shajari dagg garab min xaramin ci xaram ba xaramu màkk ba ku fa dagg garab xam na bàkkaar ay yaxrumu dana xaraam ala kulli ahadin ci kenn ku nekk mu ko xarmal la wayru wala du xarmal du ko xarmal xatan shajari dagg garab النابت بصخ بنفس زبوم كترفاين قرب ترفا والسلام أقرب سلم وغيرهما أجيرون من الحرم حرم مكة حرم مكة ترفا أكسلم أجيدون يوي حرم مكة دقوا فا مانام يوي خيطو قرب لا دقوا كو حرم مكة لفا حرام وغزالك ونقالوا مبودكو وقاتل الكلي أكدق مبوب موي نيخ أي الحشيش نيخ وقاني أكبودكو فوف حرم لفا حرام بوفا دقا دارا laakin waaye nag laa gisaa di rek fay fii di ci nekk ba li fi nekk al ismu bàkkaar faqat dong ku ko dagg nag du du jotu def dara waaye danaan bàkkaar illa sanaa lu mooy sanaa bil qasri ci dagg am zaga waxu sanaa u wa isqar ak isqar bi kasri xamzati ci kasri xamzaga wa fatil xaayi ak fataa xaaf xaaga al muajamatu guñ tomb gi falaa yaxrumu xaraamu xatmu maa dagg leen wala xalamu maa du caagin buddi leen ba li fi nekk yajus dana dagan li ixtiyaaji naasi ngir soxloo nit ñi ilayhima jëm si ñoom ñaar xaaliban ci lu not ndax nit ñi wax dëgg yàlla dañuy soxla ñaar yooyu wa sana sana nabtun gàncax la maarufum buñ xam yu tadaawaa danañ fajoo bii ci moom surban ci naan lil ishaari ngir biir buy daw wa salaamatul baatini ak muccëg biir ba min amraad yi ci ay feebaram wal isxar isxar na moom nabtun gàncax la tayibu raiha bu neexat ishbu day niru xalfa fil xilqati ci bind wa ci ñun bi suudaan suudaan bil ximriib loolu ñoom ñoo ko tudde wala yow tamit ay dem ba shajari dagg garab li binaay baytin ngir tabax kër aw suurin wala miir bi mawdi bu nekk ci barab barabu eh, barabu eh, kii garab googu mhm. bu fekkee fi ngay tabax miir bi wala kër ga ah fa la garab ga nekk loolu kay mën nañ koo dagg way jos dana dagan xatu xasan dagg ab xet aw siwaakun wala socc loolu dagan na aw xet rek woo sàmmee wala socc boo socc loolu mën naa nekk wa hada lii kullu lépp fi naabiti mooy lu sax bi nafsi si boppam mooy garab goo xam ne dafa saxal boppam waaye garab goo xam ne yaa ko fa jëmbat kay yow mi ko jëmbat mën nga ko dagg waa man mustani bu waaye waa man mustan bat kon waaye buñ jëmbat allazi bi nga xam ne te sa booba sabab lu na sax suñ jëmm fi fi inbaati si saxal ko bi xarsin ci bay aw zarin wala gàncax goo xam ne moo ko fa ji falaa yaxarumu xaraamul xat mu dagg ko wala xanamu du caageen buddi ko wa kama yaxarumu comme nu muy xaraamee خرم شجر دق قرب ونحو أجن روي من حرم مكة تحرم مكة يحرم ذا يحرم قاتم ودق عير البتاي أو قلم ولو بدك من حرم المدنة منور تحرم المدنة منور حرم مكة حرم المدنة منور يب دق فقرب ولو بدك فا دفا حرام جن من مدينة منور هم وهم أي حرم وحرم مدينة منور ما بين الحرار مولك زيجنت حرار بكسرها يتكسرها جمو دنجا حرة كوكو حجارة من قيرلا سود بنيور نخلة بفنخ كأنها رف من محروقة من لكلة بالنار سفر ندخ نولايم خير يويو دينغا لانك سيدي انت خير يويو فوف موي حرم با دينغا وقدر ذلك كم لولو بريد بريد لمن كل جانب انت بيب وال من جوانب مدينة جوانب مدينة بو خولي كوتي مدينة يب پنك ندي جورك سام چاموي بو نتي لو بلني لو تولني بريد فلا حرم بهم دينغا yabtadiwu na commencé min tarafi buyutaa si cat nu mu tuddati néeg ya saabixan ci lu lu jiitu maanaam néegi Madinatu Munawwara yi ñu wax léegi ci cat néegi ngay commencé ba ci xarra ba wa tarafuha catam a asuuru mooy miir al muhitu ba peeg bi ci ma daan léegi kon maanaam fa mu def nañ fa tabax mu ne léegi nga xam ne boo demee gis miir ba rek da xam ne fii la xarum bi yem ba ci tabaxi Medina yi fu maakaan lu nekk dàqala suuri ha ci biir miir ba men am kinal si ay barab xaarijan diggaa ji a xan xarame ci xaramam ci xorum ba falaa yaxrumu du xaram xatun sajari dagg garab an naabitu bu sax fii ci moom wala xatun du caagan bind ko buddi ko li nga xam ne nii tey mu ngi ca gannaaw miir ba ci biir miir ba dégg nga te bokkul ci xaram ba nee na foofu garab ya fa sax duñ ko buddi kon ñoom daal defal nañ foofu mandarga boo xam ne boo ñëwee da nga xam fu xaram ba yem fi nga xam ne mooy xurumu Medina mag fofu garab kenn du ko fa dagg amaa foo xam ne bokkul ci xurum bi foofu garab yi mën nañ ko faa dagg in uridu il islam astantu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh